أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala tey nuy jël benn aaya ba tey ci suratul maida lan toll ñuy jël tey aaya 64 benn aaya boo xam ne danañ ci jëri danañ ci jële ñaar ci ay njàngin muy hidayatul ayat yooyu bu ci njëkk mooy qubxu wasfu llahi taala bima la yaliq bi jalaalihi wa kamaali mbokk jurit yi danañ jàng tey ne sunu borom subhanahu wa taala kenn du ko melal ci ay melokaan yoo xam ne méngoowul ak moom moom borom bi tabaraka wa taala yàlla dafa mat yàlla subhanahu wa taala munazzah an kul an kulli naqs yàlla dañ koy setal ci bépp melokaan boo xam ne dafa manqué kenn du jox yàlla subhanahu wa taala melokaanu mbindéef yàlla dafa set dafa sell yàlla daa teey daa tedd daa mat moom yàlla moo tax doy nag mbon doomu aadama réer bay jox yàlla melokaanu mbindéef yàlla nuróowul ak kenn mooy borom bi moo bind moo tax suñ koy melal kenn du ko melal melokaanu mbindéef moom yàlla jalla jalaaluhu danañ gis yahud yi ak seen ngon melal ñoom bu ñu jox yàlla lool di tekki ne alquran a wax dëgg bés bu nekk saa yuñ ci sëggee sóobu ci danañ gis sunu boroom dinu won melokaanu mbonuk yahud yi waaye xam ngeen ne mbokk yi loolu tey dal nanu ba léeg-léeg ci ay jullit dañuy jël melokaan yooyu nga xam ne moom la yahud yi waxoon yàlla di ko melal sunu boroom bu ngeen xoolee ci weeru koor gi nu nekk am na benn théâtre bu ñu teg ndogu théâtre boobu xam ngeen ni ka ko doon def ak ña ko doon def dañuy wax ne ñoom ay jullit lañ waaye xam ngeen ne jullit du adressé yàlla yenn paroles yi rawatina nag di ko kafe di ko fontoo loolu mbokk yi pas-pasu islaam daf koy dàq ab jullit su gëmee yàlla yàlla du ko nuy fawee yàlla du ko nuy caaxaane yàlla du koo xam ne dañ koy jox yenn melokaan yi waaw boroom xam-xam yi dañuy wax ne fa kullu ma xatara bi baalik fallaahu bi xilaafi zalik lépp loo jël ci melokaan di ko melal yàlla wala nga koy gisee noonu yàllaa ngi ci ginnaaw loolu lu tax laysa ka mislihi shay yàlla nurawul ak dara moo tax kenn du jël melokaan boo xam ne yellul ak yàlla nga koy melal rawatina nag melokaan yoo xam ne ay mbindeef a ko moom te xam ngeen ne mbindeef dañ ko bind moo tax mu manqué moo tax matut koo xam ne matoo da ngaa manqué kenn du jël di la tollal ak yàlla subhanahu wa taala même bu fekkoon ne sax ab yonent kon loolu mooy lu njëkk lu ñu war a jàng ñaareel mooy subuut sifatul yadayni lillah lillahi taala sunu borom subhanahu wa taala danañ jàng tey ne sharia sunna yonent bi dafa saxal ne sunu borom subhanahu wa taala dafa am ay loxo waaw loolu nag suñ ne sunu borom dafa am ay loxo est ce que dafa tekki ne loxoom yi ak sunu loxo ñoo nuroo déedéet borom bi moo saxalal boppam ne moom dafa am ay loxo maadaama ne moom moo saxalal boppam ne moom am nay loxo kon ñun lu nu war mooy loxo yooyu nu nugam ko ne moom am nay loxo wujubul imaanu biha li nu war ci ñun mooy nu gëm ko ne sunu borom yàlla jalla jalaaluhu ku am ay loxo la waaye loxo yooyu moom yàlla na mu ko nemmee waaw na mu ko waxalee boppam noonu la ko amee comme na mu méngoo ak moom yàlla bi jalaalihi wa kamaalihi ci màggaayam ak mataayam moom yàlla la ñuy nangoo ne sunu boroom am na loxo am nay loxo melokaan la ci melokaanu yàlla yi bu mu melal boppam ab jullit war ko gëm bañ cee nekk nag di wax naka la mel naka la amee naka la naka la loolu lañ tere ab jullit waaye loolu moom pas-pas la boo xam ne def ko war a gëm moom yàlla jalla jalaaluhu waaw ne moom yàlla moo melalal boppam ay loxo moo ko melalal boppam jalla jalaaluhu na mu ko waxee nag mooy alama yaliqu bi jalaalihi ci màggaayam moom yàlla na mu tolloog na mu mel noonu la saxalel boppam loxo yooyu ci mataayam ni mu matee noonu la loxo yooyu matee noonu la mel ñetteel bi ñuy jàng tey ci sunu benn aaya bi mooy taqrir aaye dañuy saxal loo xam ne dafa nekk diggante yahudi ak nasaraan yi min al adawati wal baxda ci bañante ak nooneel loolu yàllaa ko dugal ci seen biir yàllaa ko def lu nuy woote ne ñoom dañuy ànd yépp yàllaa dugal seen biir noonoo ak mbañeent dañ koy def ba yowmal qiyaamati loolu min tadbirillahi taala suñ borom subhanahu wa taala moo ko dogal ci ñoom kon mbokk yi su fekkee dañuy xool sunu aaya bi luñ ciy jële mooy ñetti mbir yi lay doon mooy yàlla subhanahu wa taala setal gi mu setal boppam ne kenn waru koo dendaleel ci lenn lu manqué ndax moom yàlla dafa mat ci màggaayam ak sellaayam ak matam kon kenn du dendaleeg yàlla ak lu manki beneen bi moom yàlla moo melal boppam ci ay melokaan yoo xam ne doomu aadama bu ko déggee daf ko war a gëm te mooy lan moom yàlla moo wax ne moom dafa am ay loxo kon gëm ko dafa war waaye nu mu koy gëmee mooy ca yàlla na mu ko nammee na mu yelloo ak màggaayam ak mataayam moom yàlla noonu la ko defee beneen bi mooy sunu borom mooy ki nga xam ne moo saxal ci alquran ne yahudi ak nasaraan yi dañuy noonoo fu nu mën a nekk du ñu mës a bëggante ndax yàlla mooy ki dugal loolu ci seen diggante loolu la nu sunu benn aaya bi bi iznillahi tabaraka wa taala di jàngal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم الأداوة والبغداء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا wallahu la yuhibbu almufsidin sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mbokk yi mooy delluwaat rek di saxal bis bu nekk ak di nu won ak di nu jàngal ñun jullit yi ñan ñooy yahud lan mooy seen melokaan lan mooy seen jikko lan mooy seeni comportement ak seeni jëf ak seeni wax tey su fekkonte ne jullit yi noo ngi déglu yàlla subhanahu wa taala di bàyyi xel bu baax ci la leen yàlla jàngal kon seeni dundin ñoom jullit yi duñ ko jële ci yahuud yi lu tax xoolal buur bu tal na yàlla yahudi wax ci moom wax ju réy ji ba yàlla def ko yaxu alquran dinu ko nettali borom bi nee na wa qalat alyahudu yadullahi maglula wa qalat alyahud yahudi nee nañ yadullah buur boobu tudd yàlla di allah ay loxoom day dafa kët waaw yàlla loxo yi dafa kët ndax mbokk yi ku gëm yàlla lii dana yàlla sa digganteeg sa borom waxuma sax sa borom waaye ku am kilifa kilifa gu mat kilifa gu ñëpp jox cër mat jël place jël place am ci lépp ndax kilifa googu dana yàlla ñamu yilif di ko adressé wax yu wax yu wax yu manqué bu doon baay la bu doon ab président la bu doon bu doon ab buur la bu doon bu doon du yell tey jii tey sunu njiiti réew yi ku leen wax lenn rek lu ñuy wax offense au chef de l'état am na benn waaye bu ñu tëj ah benn imam bu ñu tëj at lañ ko àtte tëj ko n'est-ce pas lan lañ ko tëjee dañu ne dafa def offense au chef de l'état bal sax chef de l'état nee na kii liñ ko tëj daa tuuti ndax un an lañ ko tëj président bi nee na loolu dafa tuuti ndax li mu wax moo gën a garaaw liñ ko tëj waa léegi kon ñi jàpp yàlla tabaraka wa taala ne yàlla loxo bi dafa kët ñooñu loolu leen war a wax lu leen war a def yadullahi maghluula yuriduuna annahu taala dayaqa alayhim rizq walam yusi alayhim lu tax ñu wax wax ji ñoom lan moo leen poussé ba ñu ñu ne yàlla loxo bi dafa kët léeg-léeg ci biir dëkk bi benn waay boo xam ne du saraxe du maye du joxe soo nee diw ñu ne hee baal nu ko kooku loxo bi ca mbagg ya la kët saa yoo déggee ñu ne nit loxo bi dafa kët est-ce que liñ ci war a dégg mooy loxo bi dafa këtt dafa dagg ñi koy wax luñ ci namm mooy dafa nay dafa ŋot du saraxe du maye mbokk yi ndax ñii ñoom li ñu wax dëgg la ndax yàlla dina joxe wala du joxe ah allahu akbar wallahi yàlla day joxe te yàlla ni muy joxe doomu aadama mënu ko joxe xoolal taw bi bu tawee ba pare suñ ñëwoon ci benn milliardaire u àdduna bi taw bi towee ba pare rek ñu ñëw ñu defal ko ko facture ñu ne ko fayal ndax mun na ko fay fi mu nekk nii ni muy towee ah ni muy towee laa wax su benn aadama benn doomu aadama ne woon bàyyi leen bu tooyee ba pare maay fay facture bi lu ngeen xam ci kooku ah dina ko fay ah allahu akbar wala yàlla mën a joxe xoola boobu ba léegi yéen a ngi lekk jën ku leen koy jox yàlla ndax jeex na boobu ba léegi yéen a ngi nooyi ci ngelaw li ku leen ko jox yàlla boobu ba léegi yéen a ngi lekk ginaar ku leen ko jox boobu ba léegi yéen a ngi tabaski yéen a ngi rey xar di lekk yàpp naag yàpp xar ku leen ko jox ndax mës naa jeex kon kay kooku ku ne loxo bi dafa kët li tax nga wax ko mooy mbon waaye xam nga ne li nga wax amut moom yàlla subhanahu wa taala xéewal yi walangaan yépp yi nga yëga yi nga yëgut yàllaa koy joxe kon kenn warul adressé yàlla yenn yi nga xam ne jikkoy doomu aadama la ak melokaanam parce que melokaanu manqué la waa ji wax lii dafa engagé yahud yëpp loolu moo tax gis nga société bi suñu toogee kenn di def ay dégâts ñëpp noppi ñëpp lay engagé benn waay rek moo ne woon yàlla loxo bi dafa kët yahud yëpp ne pat bi alquran di wàcc yàlla lu mu wax wa qaalatil yahud wala engagé na leen lu tax arrida bil kufri kufrun su nit weddee yàlla sa kanam wax wax yiifiir sa kanam yow jullit weddi woo waajooj yaa ngi moom a yem est-ce que dégg ngeen wax bi su nit weddee yàlla murtad wax ci yàlla lu jaaduwut nga dégg ko ne pat yow mi dégg weddi googu waxoo ci dara yaa ngi moom yéen yem parce que dangaa nangu wax ci waaw ku dégg lu jaaduwut saxal ko d'accord ci ça veut dire que weddi woo ko da nga cee d'accord looloo tax yenn saa yi ngeen di gis su doomu aadama defee lu jaaduwut boroom xam-xam yi jóg di wax ndax nit saa yu waxee ci yàlla lu jaadu lu mu warta wax ñépp ci war a wax rawatina nag ku romb ñépp dem ba ci borom bi tabaraka wa taala adressé ko ay paroles yoo xamante ne jaaduwut yelloowul ak màggaayu yàlla tabaraka wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn doo nga wax ci yahud yi ne yàlla lii mooy melokaanam yahud yépp ànd ci noppi ba sunu borom di wàcc alquran ci sayyiduna muhammad di ko leeralal melokaanu yahud yi borom bi dane wa qaalatil yahudu yahud yépp a wax lu ñu wax ñu ne yadullahi loxo yàlla maxluulatun maxluula dafa kët waaw borom bi ne xullat aydihim ñoom kay la seen loxo yi kët loolu yàlla lim ko wax delloo la ñaan gum leen ñaanal la duwaawun alayhim ñaan gu leen yàlla ñaanal la ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi ŋott ñooy ñi nay ñooy ñu dul joxe ci yiw lu baax nekkul ne seenu ŋott nekkul ne dañ dul joxe xaalis déedéet gis nga même wax ju baax su nit lànkee sax bañ a wax wax ju baax sax kooku nay la même wax rek ju baax même sax soo ngottee xoola yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la doon wax ci albaxiil bu ñu wax ku nay ku nay mu ne albaxiilu man zukirtu indahu walam yusalli alayya ki nay mooy koo xam ne dafa dégg sax ñu ne muhammad mu naya naya naya naya naya nay nay nay nay gémmiñam diis xol bi fasu ba mu bañ a wax sallallahu alayhi wa sallam kii ku ngott la ku nay la kon mbokk yi yàlla subhanahu wa taala moo delloo tontu bi ci ñoom ne ñoom la seen loxo yi kët ci def lu baax ak wax ko mënuñu ko xullat aydihim ñoom ñi kay ñoo ñi nga xam ne ñoom la yàlla xañ def lu baax ak wax ko duñ ko wax duñ ko xalaat duñ ko def waaw kon fan la mbir mi bu njeeg ñoom yàlla mu ne wa lu'inu rëbb nañ leen bima qaalu ca wax ji ñu wax gis nga nit dina wax benn wax rek addunaam ak àllaaxiraam yëpp yàqu te waa jooju lan moo tax addunaam ak àllaaxiraam yàqu mooy benn wax rek la wax benn wax loolu tax il faut ñu def attention ci parole yi wax yi il faut ñu ci def ndànk yenn saa yi nit wax yàlla mu ne wala qad qaalu kalimatal kufri ñii de dañoo wax waxu yéeféer yahud yi la moo tax yàlla rëbb leen mooy danoo wax ne yàlla loxoy dàkkat yàlla mu ne wa lu'inu rëbb nañ leen rëbb de rëbb bi lu muy tekki mooy dañ leen a soril yërmande bi ma qaalu ci lii ñu wax nii ne loxoy yàlla dafa kët lii dana tontu tamit aaya bi dana tontu waa jooju nga xam ne fan yi dafa mel ni ku murtad ku rakkaaju wala sax yenn saa yi mën nga ne benn waaye nee na ma sànq waa jooju dañ ko son ndax fan yi amul lu muy jël ndax nee na bi muy wax ne mèche wala greffage moo koppati moo yem àtte pirig pirig mook mbax ne yem àtte bi mu koy wax gars yi dañ koy indil hadis ne ko yonent bi alayhi salatu salaam nee na laana allahu alwasila wal mustawsala yàlla na yàlla rëbb ki yokk kawaram ak ki ko yokkal moom mu ne hadis ba wérut tontu yi mu argumenté ne hadis bi wérut mooy ku toll ne yonent bi alayhi salatu wasalaam du rëbb ay nit ñuy dund loolu la wax waaw léegi yahud yàlla da leen rëbb te ñu ngi dund ndax lii du walu inu wala du moom ah wala sama téere moo am baat bi rek yéen seen téere amu ko walu inu bi ma qaalu yàlla mu ne rëbb naa leen ci lii ñu wax rëbb bi lu muy tekki mooy turidu min rahmatillah yàlla moo leen génne ci yërmandeem loolu mooy rëbb gi kon nekkul ne ku yonent bi rëbb doo dund su fekkente ne kon ku yonent bi rëbb doo dund kon ku yàlla rëbb nag noo war a def ah da ngay explosé normalement da war a toj ah tasaaroo kay waroo yem rek ci dee ndax lan yàlla la rëbb mais déedéet tekkiwul loolu lan la tekki mooy yàlla moo leen dàq ci yër ci yërmandeem mooy yërmande yàlla aljanna dootuñ ci dugg lu ko waral mooy dafa am sabab lan mooy sabab ñii yàlla dàq leen ci yërmandeem luy sabab bi waaye dafa am lu ñu wax wala dafa am lu ñu jëf bi sababi wasfihim rabb taala bil buxli ndax ku toll na yàlla nga ni dafa nay te yow dund gi ngay dund yàlla moo la ko may mbokk yi kan ci ñun fii bi muy judd dafa def demande ne yàlla def ma nit kan ci ñun kan ci yéen ne def nekk ci loxoom ku def demande ne yàlla bi ngay bind mbindee fi man dama defoon demande quoi yow yàlla nag ma def nit et puis boo ma defee nit nag ma def nit ku ñuul et puis naa nekk africain naa dëkk Sénégal naa nekk pël wala ma nekk tukulóor wala ma nekk séeréer wala ma nekk kan ci ñun fi moo defoon demande boobu mu yëkkati sa loxo waaw kon li lay wan ne yàlla dafa tabe yàlla ku baax la xoolal yàlla bi muy bind rab yeeg nag yeeg gunóor yeeg njawa njanaaw yi yàlla dafa romb loolu yëpp defu la ko est-ce que kenn ci ñun tey bu ko yàlla defoon buubu golo dañuy interpeller yàlla ne ko limaza faalta kaza dañuy interpeller yàlla ah kan moo koy interpeller laa yusal am maa yafal yàlla li muy def kenn du ko laaj te yow loo def dañ lay laaj kon suñu borom xoolal romb lépp ñëw lan daa lay def mbindeef nit wala qad karram na bani aadam nga bokk ci ñu yàlla teral def nit bi la yàlla defee nit mu romb yéefiir yi yahud nasaraan ñi ate mushrik yi mu def la ab jullit da ngaa def demande bi la yàlla defee ab jullit mu def la mu waxit ngay kennal yàlla bokkoo ci jullit yi bokkaale jullit yi takk ay béjjén jullit yi takk ay xaaw ay petaawaki jël ay picc di ko sànni yow lan la la yàlla def boole la ci ñi koy wéetal da ngaa def demande yàlla boole la ci ngay dund sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam da ngaa def demande yàlla boole la ci kuntum xayra umma xeet wi gën a baax ci xeet wi kon nun ñu xool yàlla moomu ñu ne yàlla moomu dafa nay fa ngoot bi ngay dund sa dund gi soo xoolee sa jëmm ji li la yàlla defal ci ay xéewal te wa ma bikum min ni'ma fa min allah li ngeen yëg ci ay xéewal yëpp kan moo leen ko defal sunu borom subhanahu wa taala kon buur gu mel noonu naka la ko nit di xoolee di ko melal yenn melokaan yi waaye xam ngeen ne olof yi nee nañ gémmiñ koy nàcc borom du wax jàmm nit ku bon nit am na fu muy toll ci dëgëra mbon kenn dootu la mun a defaraat waaw yàlla melal na yahud yi nee na seen xol yi daa wow ba moo gën a wow xeer kon ñooñu pour ñu wax yàlla ay wax loolu day normal parce que dañoo yàqu dañoo bon sunu borom nag daf leen a dàq ci yërmandeem la leen dàq nekkul ne rek ku yàlla rëbb dafa war a dee wala ku yonent bi rëbb dafa war a dee déedéet rëbbum yàlla mooy soril la yërmandeem ëllëg comme ni yàlla rëbb iblis bu doon tey ku ñu rëbb mu dee kon kan mooy njëkk a dee iblis iblis yàlla njëkk ne tàq naa ko ci sama yërmande xoolal waa ji moom li mu tekkee hadis bu wérut ñu ne hadis bi wérut waaye wér na mu ne wérut ndax yonent bee ko rëbb te yonent bi ku mu rëbb waroo dund loolu mooy capacité xam-xam bu mu am sunu borom ne moo leen dàq ci yërmandeem li ko waral nag mooy gis nga sunu borom foog ñuy bàyyi xel ne bis bu nekk doomu aadama su yàlla ne dafa dugg safara wala bu yàlla ne nangam nangam ci moom doomu aadama bi moom moo ko def waa aljana sax bi ñu duggee aljana yàlla dana ñoom ñoo ko liggéey ah waa safara tamit bu ñu duggee safara yàlla nee na ñoom ñoo ko liggéey bi maa kasabat ay diihim même suuf su yàqu sax yàlla ne doomu aadama yi ñoo ko liggéey ñii tamit seen waral lu tax yàlla dàq leen ci yërmandeem mooy ñoom ñoo ko def ñoom ñoo melal yàlla ñoo ko misaal loo xam ne yellul ci yàlla tabaraka wa taala minguwul ak moom jaaduwul ci yàlla subhanahu wa taala moo tax yàlla mu ne ñii génne naa leen ci sama yërmande bal li wër tey mbir moom sunu boroom yadaahu loxoom ya mabsuusataani yu tàllalu la lemu wut bank wut këttut yunfiqu da koy dépassé kayfa yasha nu mu ko neexee allahu akbar laa kama qaalu déedéet melul ne yahud ya wax laanahumullah yàlla na leen yàlla rëbb sori leen yërmandeem yadullahi loxo yàlla ya moom mabsusataani yu tàlleeku la dafa ubbeeku lan moo lay wane dafa ubbeeku yunfiqu kayfa yasha nu ko neex la koy joxe nu ko neex allahu akbar mbokk yi bu fekkoon ne yàlla amut wala kuy ngott la wala kuy manqué la la dañuy jékki-jékki benn bis ngelaw li ñuy nooyi ngelaw li daal di manqué ñu ne nañ leen wëri oxygène du dëgg nit ñi di ku nekk daw ñu branché la benn masque ngay ut loo nooyi wala boo xoolee ba ci yàgg dañ naan ah yow kat sa bët yi énergie bee jeex xaaral ñu branché la ndax sa pis sa pisu bët yi sa batterie bët yi mooy waaj a jeex xaaral ñu branché la wala wala nga wax ba ci yàgg ñu ne yow kat sa sa wax ji mooy waaja ji xaaral ñu branché la xoolal bu fekkoon ne yii yëpp benn bu nekk dañ koy branché dañuy branché bët branché nopp branché bakkan branché gémmiñ branché loxo branché tànk yi boo waree dem wanag sax ñu ne xaaral ñu branché la boo waree dem toilette sax ñu ne xaaral ñu branché la kon fu ñu jëm waaye gis nga yàlla allahu akbar moo tax sunu boroom liñ ko war a sante ak liñ ko war a màggale ak liñ ko war a gëmee dafa bëri bëri bëri bëri jege jege jege jege jege ba duñ ko gis waaw ndeysaan dafa yomb ci ñun daal dafa yomb bëri late ba ñun mënuñu gis li nu yàlla defal moo tax bu ñu déggee ñi ñuy wax wax yàlla yenn wax yi da ngay xam ne ñii di ko wax seeni xel moo matut xanaa am nañ xel mais daa bëriwut dañ cee xalaatut waaye sunu boroom ni muy joxee moo tax mu ne ay loxoom dafa tallalu mabsusataani dañoo tallu lem wut du ku nay du ku ŋot du kuy joxe tey suba mu ne da ngeen bis bu nekk maa ngi leen di jox doomu aadama boo koy ñaan bis bu nekk lu muy def ak yow sa papa sax laa wax bi lay jur wala sa wéy jur bu jigéen sa yaay bis bu nekk nga naan ko mama mama wala papa papa bu yàggee mën na la su yow waaye xoolal yàlla boo ko ñaanul da lay mere waaw wallahu in tarakta su'alahu yaxdabu wa bani aadama hiina yusalu yaxdabu yàlla soo ko ñaanul da lay mere doomu aadama soo koy ñaan toujours da lay mere yàlla moom kañ la lay mere soo ko ñaanul soo tàllalul say loxo ci moom jàng ngeen ko ci alxuraan yàlla mu ne maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum su ngeen ma dul woon ñaan sax kon duma leen faale bal sax yàlla ne inna allazina yastakbiruna an ibadati sayadxuluna jahannama daar ñii réy réylu ba duñ ñaan yàlla yàlla mu ne safara laa leen jëmee kon mbokk yi yàlla jalla jalaaluhu sunu boroom ay loxoom dafa tàllalu daf koy joxe nu mu ko neexee lii rek doy na yow mi nga xam ne yàlla mooy sa borom nga am ay aajo doy na rek nga jublu ko ci yàlla yàlla nee na da samay loxo dafa tàllee nu ma neex laay joxe yunfiqu kayfa yasha est-ce que borom alal yi tey yunfiquuna kayfa yasha kayfa shaawun dama leen di laaj yéen ñi fi toog ndax dëkk ngeen nag koo xam ne ni muy joxe nu ko neex lay joxe yenn saa yi nga gis télé gars yi bandi yooyu waykat yi di leen way nga gis waa ji ñëw di baatre di baatre mais kooku di baatre daf ko préparé de dafa dem jël benn cent mille wecc ko ay mille francs ah bien wala mu wecc ko ay deux mille wala mu wecc ko ay cent mille ay ah téeméer wala mu wecc ko ay cinq mille ah mu xam ne mun na taxaw naan nii nii par benn par benn lu tax jëlul cinq lu tax jëlul cent mille bi rek nii nii indiwaat beneen cent mille nii nii indiwaat beneen cent mille nii nii dama leen laaj mais cent mille francs la ñuy jël loolu yomb na nga dem jël cent mille francs wecc ko ay mille francs saa ñu naan waajee bëri xaalis mu naan nii di joxe ñu naan xool leen dafa jo fekk ay mille francs mille kese la wala mu jël benn deux cent cinquante mille weccee ko ko ay cinq mille francs taxaw di joxe léegi loolu jarul mu koy muy muy muy baatare na ko paqueté rek élastique kaj daal di ñëw ne nii acca bismillah mu continuer ñu xool fii ak 2 minutes 30 minutes fu muy mujje ah gars yi moo tax yenn yi c'est bien préparé jël benn sa waay mi ngi mel ne rek benn waay ju dem juma daal di jël 100 francs wecc ko ay 10 francs maire bu ne tëll mën a ko 10 francs am maire bu ne tëll ñu ne di ñu naan gàll waa ji mën a saraxe vendredi bu nekk fii lay jaar maire yëpp lay jox fekk 10 francs lay joxe ah yow kay 100 francs yooyu dafa waroon ñëw rek defee ne maire am waaye kon du jox ñeneen ñi kon du ñu ne kii moo mën a joxe allahu akbar yàlla nag melul moom yunfiqu kayfa yasha te lu muy joxe ay conteneur rek i magasin la naan bëm te yàlla li muy jox bu ëppee ci yow sax léegi nga dee lu mu lay jox bu dee ndox mi muy wàcce xoolal Dakar rek yàlla day jékki-jékki dóor benn xiin bëm gaa yi ne doy na ndox mi doy na wala géej gi tey bu yàlla ne woon jën yi anama léegi ñu ne waaw fu ñu jëm doy na wuy leen ma rek seddaay bi tey bu yàlla biisoon climatiseur bi mu ëpp bu yàggee nit ñëpp ut ay mbaaj bu yàggee nga gis nit ñi commencé dee ñu ne doy na tàngoor bi bu ko yàlla yokkee ñu ne lan wala lépp yàlla da koo limité parce que xam na ne sax même lu baax li muy joxe su ëppee doomu aadama yi alku moo tax daf koo limité da ko utal limite même alal ji ngay gis nii gis nga alal li tax yenn saa yi doomu aadama bew bew bew ba egg fi yàlla di wax ne kalla inna al insana la yattara mata an raahu staghna gis nga même alal ji bu ëppee rek nga yàqu buy ëpp nga yàqu kon yàlla sax ci xéewal yi muy joxe daf koy limité waaye nim ñu koy joxee su fekkoon ne dafa ëpp ñun ñëpp ñu pare kenn dootu fi nekkati waaw yàlla li mu am walillahi xazainu samawati wal ard magasin asamaan yi kan moo ko moom yàlla day taw ba taw biir géej géej lu fa nekk est-ce que géej daa soxla ndox yàlla day taw ba taw biir géej ah nga gis géej gi day mer génne waa ndox mi ne ko man yàlla jubu soxla ma ko waaw man sama ndox mi dëkk doy na mu nga kon sunu boroom a mel noonu li mu yor doyewu ko dara pour jaam ñi la huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian kon yàlla du ku ŋot yàlla day joxe wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha yàlla ni muy joxe ay loxoom dafa tàlleeku nu ko neex la koy joxe kon yow mi gëm ne sa boroom day joxe te nga soxla noo war a def tàllal ko say loxo ne ko jox ma waaw yunfiqu kayfa yasha moom sunu borom jalla jalaaluhu mu ne wala yazidanna yàlla de dana dolli lan lay dolli kasiran lu baree bari minhum ci ñoom ci wax ji nga xam ne ñoom moom lañu wax ñoom yahud yi wala yazidanna kasirun minhum ay al yahud min al yahud ma unzila ilayka min al ayat allati tubayinu xubusuhum yàlla nee na lii ma wàccee ci yow muhammad alayhi salaatu wasalaam muy alquran dina la doy ak leer boo xam ne man yàlla jalla jalaaluhu maa lay leeralal lii ñii seeni melokaan ak seenu mbon ma unzila ilayka lii nga xam ne moom laa wàcce yow min rabbika mu bàyyee ko ci bo- sa boroom di nga gis mu lay leeralal tuxyaanan wa kufran ñii di yahud mbon gum leen yokk ak kéefir gum leen yokk waaw sunu borom ne jalla jalaaluhu yow muhammad alayhi salaatu wasalaam ay yi ma wàcce ci yow tubayinu dana la leeral xubsuhum seenu mbon wa tuksifu dana génne aaya yi yii ma la jox dana la leeralal génneel leen seen pas-pas yu bon yu ñu nëbb ñoom yahuudi ak seen ñaawtee fi jëf an suu afaalihim al muxziyati lahum mbon googu nga xam ne ëllëg dana leen indil gàcc àddina gàcc àllaaxira yàlla nee na subhaanahu wa taala yow muhammad aaya yi ma la wàcceel dina la ko leeralal ba mu leer naññ naññ naññ naññ naññ kon mbokk yi liñ daan faral di wax rek la ñuy delluwaat mooy ba nu bàyyee jàng alquran ba nu bàyyee déglu alquran ci la ñu xabaar àdduna bi daal di nëbbu waaw ndax yàlla subhaanahu wa taala moo sàkk yahud yi dogal ci ñoom ñu jiitu fi nag yàlla wàcce ci ñoom ay yonent waaye yàlla xam ñooy ñan yàlla tënk seeni melokaan yëpp ak seeni jikkoog lépp daal di koy wàcceel sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam informé ko ne ko ñii nga dëkkal ñii kat nii lañ mel léegi nag jullit ñi daal di ñëw daal di ignoré alquran boobu indi leen ay information moo tax mënatunoo xam lan moo xew ci adduna bi te adduna bi instant bi yahudi yi ñoo ko yore di ko créé nu mu leen neexee dugal fi ay pas-pas yu bon ay ñaaw téef ay façon dundin ay idéologie yoo xam ne ci la ñu tënk àdduna bi àdduna bi di ci dox ci ay mbon ak lépp nag sunu borom subhanahu wa taala nee na wa alqayna man yàlla maa sànni maa dugal maay ki def baynahum seen diggante al adawata nooneel wal baxda ak mbañante waaw man yàlla maa dugal diggante nasaraan yi ak yahuud yi mbañeel gu am seen diggante bayna al yahud wa nasaara la tantahi ila yawmi alqiyaama du jeex ba yawma alqiyaam man yàlla maa ko def moo tax gis ngeen yahuud yi biñ jàppee isa li doon seen programme ci moom mooy rey ko waaye yàlla subhanahu wa taala mooy ki ko sauvé moo tax ba yàlla sauvé isa ñu topp ci ñi des di rey di lakk di def lu bon ba nasaraan yi mujjee sukk jébbalu nangul leen mooy jege gu ndaw googu ngeen di gis diggante yahud yi ak nasaraan yi jege ko du lenn lu dul mbon gu ñu yàgg a sotti ci yahud yi ak nasaraan yi ba nasaraan yi tàyyi daal leen di jébbalu nangul leen waaye mosuñoo bëggante ndax pas-pasu yahud ci isa mooy doomu lan la doomu njaaloo la nga gis lay wan ne nit ñi seenu mon yahudi liñ jàpp ci isa mooy doomu njaaloo la julli ñi lan lañ jàpp ci isa jaamu yàlla jaamu yàlla kon dëgg-dëgg ñaar ñii ñaari mbooloo yi nasaraan yi ñan lañ ci waroon faral ah ba pare xoolal tey demal kër jullit ñaata isa nga fay fekk dañu laaj benn borom xam benn yahud ne ko ñun de danañ dugg àjjana beneen nasaraan ne ñun tamit danañ dugg àjjana ñu ne jullit bi yow loo ci xam mu ne lan laa xam ci lan ñu ne ndax yahud dana dugg àjjana wala nasaraan dana dugg àjjana mu ne ah wax dëgg yàlla loolu lay mbir la moo xam ne wax ci dana neex a tontu torop ñu ne ko bismillah yow la ñuy déglu mu ne yahud bu duggee aljanna jullit dana dugg nasaraan bu duggee aljanna jullit dana dugg ñu ne ko loolu nu mu nekke mu ne ndax nun danoo gëm Muusa gëm Isa du dëgg mu ne waaye yéen nag ñun du ñu duggee yéen seen bés wóorut te xoolal loolu mooy dëgg daanaka tey àdduna bi lii ñuy wax dëgg dëgg dëgg ci diggante wuute ak diggante ñàkk déggoo diggante yahudi yi ak nasaraan yi ak jullit yi ñi ko keree duñu ay jullit jullit ñi defuñu ko moo tax kuy wax jullit ñi ay terroriste lañ wala jullit ñoo fi indi nooneel ci àdduna bi wala jullit ñoo fi indi mbañeel yow jàngoo diine mbokk yi yéen ñëpp yéen a ngi nii lu ngeen tiim la lu ngeen dund la lu ngeen xam la lu ngeen jàng la kër yahudi ñaata Muusa ndax am na Muhammad kër yahudi am na Muhammad bas ngeen gis yahud bu tudd Muhammad ah ok ñi- kër yahudi musu leen faa gis Muhammad mais kër jullit ñaata Muusa moo fa nekk est-ce que fii ci jàkka ji sax am ko tudd Muusa ñaata Mariama moo am kër jullit yi ñaata Isa moo am kër kër jullit yi ñaata la ah ndax xam mën nañ mën nañ ko wàññi daanaka xoolal li- li ñu am ci ay muhammad ay turandoo li ñu am ci muhammad ay turandoo toll na ne li isa am foo gis isa da nga fay gis muhammad foo gis Moussa gis ba muhammad foo gis Mariama xoolal jigéen ñi ñaata Mariama moo am ci Sénégal ci àdduna bi léegi nag yéen bu fekkee da ngeen ne ñun gëmuñu seen diine du dëgg ñun nangam ak nangam te wax dëgg yàlla ñun sunuy sunuy sunuy doom ak sunuy lépp dañ ko tudde seeni yonant kon kay yéen xam ngeen ne ñun ñun bëgg nañ leen alxuraan moo ne ñun laa nu farriqu bayna ahadim min rusuli du ñu tàqale benn yonant donte ne muhammad mooy ki ñuy topp ki ñuy roy du ñu weddi ibrahim du ñu weddi muusa du ñu weddi isa bi gaa yi ne mariama dafa njaaloo isa mooy doom ji kan moo ñëw di ko weddi alquran jullit ñi ñoo ñëw daal di sang mariama ba mu set daad ne kii kat ab jaamu yàlla la ku sellal la yàlla moo ko may kado isa mu nekk doom kon dëgg-dëgg euh, loolu gaa yi naan dialogue yenn saa yi nga dégg ñu ne dialogue lan islam ak ah ñaateen ngeen dégg loolu kon ñun dialogue bi ñun ñoo ko njëkk a nangu ñun ñoo ko njëkk a def ndax ñun ñoo gëm seen diine tuddee leen ay doom gëm seeni yonent ñoom tey jii indi leen ma benn nasaraan bu tudd Muhammad ñu ngi may nettali benn kër sœur fii ci Dakar benn xale bu feebar yaayam xëy yóbbu ko ndeysaan bi mu ñëwee ki fa nekk dafa gis xale bi rek bëgg ko jël ko di ko fóon premier jour ah bëgg xale bi ndax xale bi ni ko yàlla bindee ni mu rafetee ni mu setee deuxième jour mu ñëw femme bi dafa gis xale bi rek ci rang bi mu daa di ne yaayu xale bi jox ma xale bi bu mu rang yaay ji daal di génn raawe ñëw teg mu daal di jël kër gi di bind tur bi mu ne ko waaye yow sax sa doom ji man fàtte naa laaj ñu tur mu ne ko Muhammad rek mu bàyyi xale bi xale bi ne rëll ci taabul bi mu ne ko jël ko jël ko yaay ji nee na ma tiit di lox ma jël xale bi ma ne ko yow mbaa jàmm la lan la mu ne mu ne dara dara daal di bind rek ko demal fële demal fële xoolal tur bi ko bi ñu ko wax ne ko Muhammad bi rek moo moo mu ne tëll xale bi tey bu doon ab julit moo fa nekk ndeysaan benn waaye dafa maa laaj dem mu ne ma pompe ndox yi booy di defaral gaa yi dafa am benn jigéen de moom de chrétien la nee na ndax moom bu defee demande gaa yi dañ ko defal ndox ma ne ko bu ngeen demee ngeen ne ko mu defal chrétien yi Sénégal yëpp demande ñëpp ñu dañ leen defal pompe ñun l'islam la ñuy dund te l'islam daf laa wax ne na nga weg doomu aadama yi ku nekk na nga ko yërëm da ngeen fàtte ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na benn waay daa mar naan daa mar naan wàcc ci teen bi naan ba pare gis benn xaj mar naan bay mar naan bay mar xeer yi waa ji daal di jël xuffam daal ci tànk ndox may xaj bi kooku lan la ko yàlla def yàlla da koo dugal aljanna kon ku may xaj ndox dugg àjjana kon ku may nit ndox foo jëm loolu mooy lislaam yonent bi nee na même rabu àll yi da nga ciy am tiyaaba même rabu àll yi boo ci defal dara lu baax da ngay am tiyaaba loolu mooy diine mbokk yi waaw islaam moo indi jàmm ci kaw suuf sunu borom nee na yàlla subhaanahu wa taala mooy ki dugal nooneel ak mbañeel diggante yahuud yeeg nasaraan yi léegi loolu nag day am ba yowmal qiyaamati te kullama awqadu naaran lil harb saa yu ñu taalee safara pour ay atfaaha allah yàlla dina ko fay saa yu ñu xambee safara pour taal addina bi adduna bi am na boroomam yàlla dina ko fay gis ngeen guerre yi indi ci adduna bi yenn saa yi dañuy dem dem ba xam ne lii mënatu la nekk yàlla fay ko mais bu doon seen sago fii la adduna bi di jaar rek guerre daa di am yëpp adduna bi daa di tukki mais adduna bi dafa am borom saa yi ñu indee problème yàlla dina indi solution sunu borom jalla jalla mu ne wa yasaw na dañuy dox fil ardi ci suuf fasaadan di yàq loolu aaya bi kese kese kese wa yasaw na fil ardi fasaad mënoon nañ cee def waxtaan juróom fukki at ci programme yahud yi ci kaw suuf ci li yàq adduna bi tey li tax doomu aadama yi duñ duñu xam seen borom li tax doomu aadama yi duñu nekk jullit mu ne wallahu yàlla laa yuhibbu bëggul almufsidiina yàqkat yi bés bu nekk ñu wax ne bu ñuy jàng alquran bu aaya yi di jeex nañuy bàyyi xel aaya yi fu ñuy jeexee sunu borom subhanahu wa taala nee na wallahu la yuhibbu lmufsidin man yàlla bëgguma yàqkat yàlla day bëgg dafa bokk ci ni mu mel moom yàlla jalla jalaaluhu day bëgg day bañ waaw jàngeen ñu ne yàlla inna allaha yuhibbu lmuhsinin yàlla bëgg na ñiy rafetal ah noonu yàlla bëggee ñiy rafetal noonu la bañee ñiy yàq waaw léeg-léeg baat yi ñu koy firee neneen nu dul noonu waaye li yàlla wax rek mooy di am yàlla day bëgg day bañ suñ la nee yàlla dafa bëgg ñiy rafetal yàlla bëggul ñiy yàq yow ngay ab julit foo war a far kon góorgóorul defal sa kemtalaayal kàttan ñii yàlla bañ bu ci bokk ñii yàlla bëgg fexeel nga nekk ci yàlla nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko kon lii moo doon benn aaya bi ñu waroon jël tey noo ngi jéggalu njuum tey asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkee am na ay laaj wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu naam